alors Doudou kontaan nañ gis la. ça sant yow nice. sa relation ak Abiba rek. non Abiba c' est une moo tax Abiba moom c' est une sœur quoi du tay nan nga gisee spectacle bi. waaw comme dab rek moom moom xam nga ne day day tasaare fii loolu moom c' était c' était évident ñu bëri nam la ci ay. gëj nañ la gis tuuti si vidéo waaw waaw lu ma nekk xam nga rek di ressourcer waat parce que ay année ngi nii ñu ngi def mënuñu continuer à chaque fois di def même chose même chose il faut ñu delluwaat xam nga jàngaat lu bëri wala ñu ñëwaat. mais nee nañ gars yi nee nañ si publicité bi nga gën a taxaw léegi. dootoo publicité sax gëj naa ko def kay gisatuñu ma benn série rek lañ may gis waaw. say fans nag lu ñuy xaar ci yow. ñu ngi maa ngi ñëw année 2022 sama année la incha allah su ma yàlla rayul moom sama quatre wala waaw kay waaw troisième bi incha allah. te mun nañu xaar leneen lu bees soo xam ne duuru dina. waaw moom ak duuru moom xam nga chaque fois rek nañu xaar ne xalaatuñ ko woon. nag série fu nekk nii une femme mbégte rek di remercier suñu réalisateur bi see ak équipe bi yëpp parce que jàpp nañ ci euh, bi neex gars yi kon xam nga kontaan rek rôle comme que gars yi bég nañ rek loolu lañ ci bëggoon quoi. est ce que amoo nañ ñaan nga yem yeneen maison de production yi dem nañ la démarché nga non xaw ma peut être ma suñ ma ñemee rek man <laughs> waaw. da nga tàng ah, la may bi loolu la. da nga tàng ah man tàng ma tàng de dama tàng moom loolu moom nëbb ma <laughs> di fay na ah mi ngi mi toog. Ah, waaw dégg naa eh. mi ngi toog sama jabar la mi ngi waaw sama jabar la waaw. mariage non passé na. passé na kenn xamu ko. wóorul média yi leneen la ñuy bind. TikTok bi tu es euh, suivi ñëpp apprécié la vraiment nga nekk jeune boo xam ne ñëpp dañ la apprécié lan ngay lan ngay wax 2021 lan ngay souhaité say fans lan nga bëggoon peut-être amoo. waaw di leen souhaiter euh, yàlla defal leen année bi ni ñëw gën année ñu génn quoi parce que depuis 2020 ñu ngi gis ay affaires yu yéeme xam nga di ñaan yàlla 2022 moom mu mu mu wàccee miséricorde bi quoi ba yërëm som parce que àdduna bi tàng na nit ñi tamit nañ leen wax di leen wax tamit ñoom nañ wàññi affaires yi quoi baaxaar <laughs> yi bu ñu wàññiwul baaxaar yi affaire day gën di tar rek dañu wàññi balaa ñuy souhaiter bonne année ñi ñoo ko war a préparer bonne année dañ koy préparer kon sama gars yi nañ préparer année bi ah mu rafet ah. <laughs> waaw yow daal njëkk a gis tey euh, comédie comédien boo xam ne jël na grand salle yoo xam ne ñeneen ñu ngi lay toppandoo tey ñu ngi koy def di ko réussir nan nga gis. ah loolu moom c'est c'est une fierté quoi parce que man sama combat mooy humour am doole Sénégal ba nit ñi di déplacé wu di dem di seetaan ay spectacle humour comme ni ñuy demee di seetaan concert comme que loolu mi ngi am temps yi mi ngi am léegi macha allah naa si trop mu gisee sama frère yi ñoom tam def ay spectacle boo xam ne daf ma daf ma daf ma ma neex trop waaye. merci beaucoup de am leen